waaw téye ko waaw. waaw sax waaw sax yow benn bopp. waaw kay de. Samb yow bàyyi na. tam rek. waaw day baax waaw. waaw. Yëpp jàmm non xaaral ma tungom la xaaral soxla ma tungom soxla ma tungom soxla ma tungom mu mel ni soq a ngi noonu di door a yegg waaw yàlla mooy ko rek soq a ngi noonu am na benn kaala bu weex bu nu ko jox mooy ko rek tey soog. waa noonu di ñëw am na benn kaalo bu nu ko jox am na benn moo ngay dox di ñëw tout noir la sol sol dàll yu weex def kaala gu weex. tey soog. fii baax fii baax na de. waaw kay. non non non foofu ñu defaru. waaw moom la gars yi

balaa loolu dañuy wax onze bila bisimilah inna wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi santaat Serigne Touba bu baax doole santaat Serigne Touba bu baax di waxaat jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba di sant suma yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di sant suma sumay famille di sant sumay mbok di sant suma mafia bi yëpp ndax gis nga leen nii xam nga gars yi dañoo nangoo sonn ci man xam nga nangoo daj coono ci man lii nii rek xam nga mhm. ñaax la quoi xam nga maa ngi santaat yàlla bu baax mhm. di sant suma nijaay jibi joola bu baax a baax a baax mhm. di ko santaat encore une fois di sant dëkk bi ma jógee ñi fa nekk ñëpp muy waa Maroc maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal tawféex ndax bi ma fa demee wax dëgg fa yàlla taxaw nañ ma comme niñ ma war a taxawoo waaw waaw lan moo tax euh, Sokh soit Maroc parce que dañu gis mbari souvent Europe la ñuy taamu wala Amérique mais yow nga taamu pays Maghreb yi buñ ko waxee mooy Maroc gi nga demoon lan lan moo tax soit Maroc bi. non ñun moom boo gisee soit wu bi rien ko pour am récupération dong la fu ñu mën a dem ci àdduna ñu faa liggéey luñ mënul liggéey fii Sénégal. comprendre ga mais parfois day laaj boo amee yenn combat yi. nga génn dem laqatu benn ruq boo xam ni. di nga raar ni ñi. mun a am préparation bu baax. staff bi toog waxtaan si. ni na génn ma génn dem Maroc. loolu la loolu la rek loolu la rek du leneen. bi nga demee ci côté liggéey bu buñ la laajoon loo fa doon liggéey ci ban fa ci maanaam sa liggéey ci loo ko gënoon accès quoi ci wàllu entraînement. non liggéey nañ lépp. parce que nag buñ naxantewul ki may bëreel champion la. Ah, su ma paree lii bàyyi lii fay mun na am. Hmm. liggéey nañ lépp li des mooy ñëw mottali contact bu wow koŋŋ le 19 juin jot mu ñëw jàmmaarloog fara hmm. loolu dong moo ci des amul leneen. mais est-ce que du côté misculation bi buñ maanaam moom nga gënoon di liggéey foofu wala. non Maroc diin yi fa nekk amul fenn. am na ay diin am na saal am lépp. Hmm. ñoom bu ma leen ëppee sens sax côté boobu laa leen di ëppee sens moom Franc. man fi ma nekkoon am na ay diin dama doon yéeg diin matin au soir. di def musculation bu wow koŋ. Mhm. dama ñibbisi nii pour contact dalanteeg mbër yi. Hmm. bisu le 19 juin jot ma ñëw def fu la def fayda. Mhm. loolu rek laa gëm. kese amul leneen. Hmm. Euh, euh, keroog face à face bi gis naa la yak franc nga attaqué ko ñu gis la ci benn ton boo xam ne mosuñu la cee gis daa mel ni lan moo la yóbbee loolu. adversaire bi la da am da nga ko ñeemal lool wala nga xam ay faayam wala boog am ñuy wax ne Sokh dafa am lu mu tiit ci Franc ba tax mu waxee noonu lu xew. non du ay ay ay ñeme Franc Franc ay xam faayam lamb moo dépassé naxante bu ñu waxee tey dëgg lamb dépassé na naxante su may bëreeg Franc di nax sama bopp wala may jéem a naxanteeg moom yaakaar ni nax ko moo koy daan damay nax sama bopp moom bu yaakaaree ni. Hmm. naxante mooy daan Sokh mu ngi nax boppam. Hmm. dama ni. Hmm. lamb li ci nekk léegi ku ëpp sa morom doole duma moo ci am. mu ko jëlee ba pare nag. xam ni booy yi ñu maa ëpp doole damay dem làqatu ji def li dal sama xel ñëw jàmmaarloog moom la 19 juin loolu moo ma ñor man li may wax dafa leer. Masamba ñoruma ma Demba ñoruma Émile François Gomis moo ma ñor pour le 19 juin. xam nga ko bu baax. Émile François Gomis bu bu ñuy wax mbër sax moom laa gën a xam ci mbër. lu tax ñoo bokkoon benn koñ Intercept. Hmm. màggandoo ba niñ tol nii. Pikine laa dëkkoon. suma yaay nekk intercept ma dem nekk ak moom intercept. Hmm. dellu si waat Pikine. Hmm. xam naa ko xam na ma. Hmm. dama leen waxoon ci départ bi ni. su ma bëreewul ak booy yii ñu naan ñoo am kattan. damay bàyyi làmb te li ma doon wax caaxaanuma ci de suñ ma indi leen beneen mbër bu dul booy yii nii ñu fi bàyyi. du ma bërewaat parce que dafa am beneen xar kanam bu ma war a wone ci làmb te ci ñoom laa ko mën a wone keneen ku ma fi jël daan la du safe. ndax dama lay ëpp doole comme ñoom lañ fi bàyyi di leen moytu. ndax lan nee nañ dañoo am doole ñëpp loolu la àdduna yëpp wax. est ce que doole kese lañ am Franc est ce que doole rek la am est ce que mënut a bëre parce que raatal na mbapat yi tamit de. Franc mën na bëre. waaye maako ko dàq bëre. yow mi sox dama ni. waaw. <clears throat> c'est que nit ñi. sénégalais moo gaaw a fàtte. dañuy laaj de bu ñu indee ay combat Franc ñu tànn ci dix. teg hmm. tànn ci samay combat dix teg ñu xool jëli Franc daan ak jëli ma daan bokkul sax. ku jël li la. man dama doon foo di bëre ci biir bëre may la wër ndomba nga wër ma ndomba ma wëlbatiku daan la may la tànk nga jàpp ma daan la jàpp sa ngemb yenn ba ci kaw dóor suuf buñ génnee samay jël génne ay jëllu franc maam du kenn nag man la. yow la parce que maa amoon benn ñàkk fayda bu ndaw bu ma doon wane ci làmb booy bëgg a dem di ma fi ba sama bakkan bii laa ci teg nekk champion wala dee. sa confiance lan la sonn ci man de ñii ngay gis ni bi may débuté lamb ba léegi heure boo gesoo sama ginnaaw nga leen di gis ñii ngay gis ni parce maam Seera Fall ba may booy ba léegi zéro xaddi may neex la maag ñoom la may naqari la maag ñoom la comprendre nga ah. kon man waruñu ma gën a gore jamono jii nii fooweewu ma làmb sama bakkan laaj teg kafuma ci réew ma ci barke maam Seera Fall mhm, ñu gis ni ne nekkoo mbër bu violent ci biir géew mhm. adversaire arbitre sifflé nga agressé sa adversaire ci xeex bu méttee méttee méttee est-ce que bi nga demee Maroc jàngaar nga xeex bu baax a baax maanaam boxe est-ce que def nga ko fa lu man mbër mu ma mës a ci làmb yaa arrière. Hmm. génne leen samay combat da ngaa mës a seetaan soq mbër di ko dàq di ko duma muy arrière ba daan la. wala mbër di mu mbër di ko dàq ji muy daw ba daanu ci. mësta am ci làmb maay ñëw def yëfi gone juum daanu. waaye kaay nga duma soq daan ko amul ci làmb wax ma ban adversaire moo duma soq ci làmb daan ko. côté xeex bi ndax ndax waajal nga foofu bu baax a baax xeex. dama ni mu koy neex mu koy naqari dañuy xeex wax naa ko keroog ci direct bi mu koy neex mu koy naqari dañuy xeex di dem ardu di nàcc di dem di ñëw li maa ko ko wax. bu yaakaaree ni day bëre combat wu vingt minutes trente minutes barki maam Serafal mu ngi nax boppam man du ma mbër mu ñuy daan ci ay minutes dégg naa ko keroog mu ne daf may may trente secondes bu ma ñëwul ci trente secondes yi mu daan ma ci trente secondes du ma mbër bu ñuy daan ci 30 secondes yàlla moo yor ndam yàlla ma ko defal mais même bu may ñàkk laa wax nit ñi dinañ xam ne Sokh ci ngor la ñàkkee. te mm-hmm. combat bii nii du combat bu may perte sama carrière man maa wax man Sokh. Mm-hmm. yóbbaale paa bi lan nga jublu contact moom foofu wala lan. paa sama seex la du sama raq de sama seex la musuma tëdd fu mu tëddul combat yi ma mës a yëpp bu doon. Bambey maag moom ma fay tëdd ba combat bi jeex. suma rakk bu sori ci sama xol la fu ma nekk mu nekk fa bu ma amee combat soxlaatul dara. milliard bu taxawoon barki maam Seera Fall da ko fay ba ñëw ànd man fu ma tëdd mu tëdd fa bu ma jugee mu jug daf maa bëgg ba dépassé ay affaire mag ak rakk. loolu moo tax fu ma jëm ci àdduna ñaan naa yàlla ànd ak moom su ma ko samay moyen mayee. léegi fi ñuy jeexal ak yow mooy dañuy ñëw ci Pikine parce que laajoon naa la ko fi euh, tey buñ ne Eumeu Sène gis na ndam lu mag li mu jógee barki démb Boy Niang Ama Balde ñoom ñett ñu nekk ay ténor tey soq nekk koo xam ne jeune la xale la mais bu ñu génne ñooñu rek tur soq day ñëw. lu may loolu soq Pekin ak mobil mobilisation bi nga mujj def bi ngay bëre ak ki nga xam ne moom mooy Gamou Gueye lan moo la may loolu biir Pekin. du sama njàmbaarte de doon taalibe rek man taalibe suñ Tuubaa te nit bu ma jiitoo benn paa dama koy nangul benn paa boobu mu ma jiitoo du ma leen teg mbag du ma leen giir mbag ñi may giir mbag mooy ñoom Émile François Gomis jëm leen daan yegg fi ñooñu yegg ñooñu ñooy sumay roi des arènes ñooy sumay champion ñooy sumay grand frère te su may bëree ci samay bis ñoom ñëpp damay yëg ni dañ may sotal ma gis leen ak ma ñàkk leen gis ndax loolu lu ma dund ak ñoom la li yi gëm def ko seen bopp gëm ma loolu man taalibe suñ Tuubaa nit laa xam mais xaw ma ay jëf wala ñëw écran ñu ne diw moo bëgg diw hmm. na affaire yi di sax si xol yi rek loolu laa gëm hmm. gëwuma leneen. Ama hmm. Baldé démb jël naa ko nee na dinu Tiwaawan pële dinu fële dëkk ba nu tuddati wet Tiwaawan. Mboro <laughs> dinu Mboro ya fa ngeen jëm. pare nga pour ñu dékku loolu noonu yëpp. non man waaye yow déggoo li ma la wax combat bii nii ku joxe bakkanam kay bàyyul kenn man déggoo li ma la wax. fi may waxee mooy mooy soutenir bi mu nar a soutenir ci combat bi waaw. waaw léegi Eumeu mi ma woo ni ma boo ñëwee combat bi yëpp ma ak yow a koy contact nag. Ah? boo ba may dem daf ma woo ñaax ma ni ma yaa ngi doog a jël làmb ci sa carrière. Ah. góorgóorlul. kon ñoom am nañ yéene ci Sokh bëgg nañ ñoom yi am nañ yéene fi ñu nekk man tey ma fekk si leen fa ndax xam nañ ne bientôt Eumeu Sène day bàyyi ci kaw bu naree yaraax ñun ñoom Sokh ñoom Ziza ñoom Jara 2 ñoom Valdo ñoom Tyson 2 ñun ñoo war a dem seere ji te man gëm naa ne ci ñu war a seere ji laa bokk te fulla ak fayda la ci teg nag. mais soutien wu Ama Baldé Eumeu Sène Boy Niang ci biir combat. xanaa kon dafa mel ni kon dër bi parcelle ak pikin bi dafa nar a tar parce que li nga wax fi yëpp soutien bu doy waar la de. pourtant bu ñëwul sax si kàttanu yàlla dinaa daan franc. waaw boobu ngay wax. waaw man li ma gëm. waaw mooy bu kenn àndul ak man ñii sax ku buñ doon seen kër. man kese ma dem làmb ja. Émile waa Gomis dinaa ko daan ba jéggi ko. Ouzin. ka dama dégg nga ñëw ci soutien wu Eumeu Sène. waaw soutien wu Ama Baldé. waaw ci diggante Parcelles ak Pikine derby bi. Mhm. te moom mii dañoo seetlu génn bi muy génn dem Parcelles yëpp day ñàkk. ci diggante mag Ramdan ci diggante Laye Patago te mu ñëw duggaat Parcelles diggante mag Franc naka la na waajee loolu. dégg nga question. sant yàlla la xam nga li mu wax d' accord parce que benn instant da ngay toll benn moment boo xam ne. Ah. say adversaire dañuy nekk benn bërëb. yaakaar naa dal na Boy Niang ci géejawaay waaw mu bëreeg ñaata mbëru géejawaay. bëri na lu fa daan yaakaar naa dal na yeneen mbër yoo xam ne tey da ñëw. ci gox tombeeg année boobu noonu say adversaire nekk benn gox. Mhm. muy tey boo jógee ci Émile François Gomis. am nga pour bëriwaat beneen champion foofu parce que bëri na ay champion yu fa nekk. Mhm. comprendre nga loolu moom moo ko waral mais man li weesu ci sama làmb. Mhm. weesu na ci sama làmb. li nekk ci sama kanam moom ma ñor muy france waa Gomis mi moo war a bëreel su ma bëreeg moom ba pare. ma dem xooli keneen ku ma war a bëreel mais ki ñor. taxaw tembe mooy Franc. da nga doon rig. <laughs> non yooyu <laughs> dégg naa dégg naa woyul Lamine. non non non non man ndax man coow yooyu yëpp mu ngi ma fekk fële. mais yéen kooku boo leen xoolee cuisam yooyu ngeen xam ni ko loolu du cuis soog maa ngi nii matuma six kilos. <laughs> looy promoteur bi tëgg làmb ji waa jàmbar waa jàmbar production. en tout cas balaa may wax ci promoteur bi. waaw damay sant suma staff bi mafia bi nii ah. staff bi moom waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant Ousmane Diop Boston ah suma grand. maa ngi lay woo ci combat bi bu baax a baax njaaye nag suma jigéen suma xarit moom mi ma yoroon Maroc suma grand gauche xam nga ak suma grand Modou Fall gars yëpp maa leen di bëggee marché Médina bi yëpp maa ngi leen di bëggee bu baax man sook ñoom suwa ak ñëpp maa leen di bëggee comprendre ga beneen affaire bi may wax. Hmm. mooy promoteur bi. Hmm. na yi jàppale quoi. waaw ndax jàmbaar production la. Mhm. xam nga dégg nañ ci detaay bu nekk mais ñun loolu ñoruñu encore une fois. Mhm. li wér mooy. Mhm. bi ñëpp nekkee fii di xiin xiin moom moo ñëw génnee ay moyen tëgg franc ak soq. combat bu neex la tëgg combat ñaari xale te loolu la nit ñi di wër na ko nit ñi jàppale. man maa ngi koy ñaanal réussite total ci bis bi. barki Serigne Saliou Mbacke lu ma mën pour bis bi taaru man soq dinaa ko def te mbëru amateur la te waa Pikine bëgg nañ ma te ñu ngi sama ginnaaw maa ngi sant waa Pikine yëpp nag. di sant waa Casamance bu baax ñoom ni xooyoon di muyul de combat di jokoorom di ay noome na xooje si lop mais sum jaade mi nam ne taxool ñoom ni xooyoon di muyul mu fe ñoom ni xooyoon di muyul Pikine ginnaaw raay waa ginnaaw yëpp préparé leen combat seen combat la waa tali bees mafia afia bi maa ngi leen di bëggee bu baax suñu waa écrit waa xam sa cosaan maa ngi bëggee ñëpp di bëggee suma nijaay di bëggee képp ku may ñaanal nag di bëggee suma mbokk bawal bawal yi maa ngi leen di ña bëggee baax ngeen ñaanal ma ci combat bi ñaanal suma mboku séeréer yi ak looro looro yi ah, suma mbokk looro looro yëpp eh, barki maam Seera Fall maa leen di woo xam nga ay ñoom moo kot ñoom ond fu ñëpp maa leen di bëggee baax jaajëf gaay tawfeex wuy ma maa ngi bëggee nag chauffeur yi chauffeur yi nekk fii aéroport bi ndax fii sama eh, mafia rek moo fi nekk maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen wax ngeen ñaan combat bi incha allah dinañ ci am ndam incha allah.